moom Macky Sall génn sax mesure pour wóoruma ne dana ko def ak lu ka Sénégal folli lañ mën mënuñu fab ndax dañuy fab seen carte ni kii kër naka jarul jox carte. bàyyi bàyyi rek rek kees bàyyi ko bàyyi ma la expliqué. man chaque jour. YouTube lay dugg naa même bu keroog bu muy ànd ak bàyyi na responsabilité APR yëpp. waaw mais. dina jàppale Macky Sall ba mu fol bu folee mais li ci des damaa bëgg maire Dakar dama ko bëgg a jiite man loolu mais mais man du ma nekk président Sénégal dama ni Arona képp ku jàppale ci maire ak présidence assemblée nationale looy wut ci Sénégal ndax bëgguma jiite Sénégal mais yooyu dama koo bëgg te bi may ànd ak moom bi may ànd ak moom dama ni ko assemblée nationale boo gagné danaa ko wax sama livre.

ma j'ai mis mon intelligence mes parents mes amis mon avenir politique avec suma suma am ci ressource pour am am 21 millions je am am li am 500 millions je xam ne tey ko 100 millions 50 millions 20 millions 30 millions te lépp maa ko jënd kon loolu bu dee yàlla may na ma ko ma falu quatre-vingt-dix-huit député dellu si assemblée deux mille sept booba Macky Sall amagul pour Macky Sall génn sax deuxième pour wóoru ma ne dana ko def ak lu ka Sénégal folli lañ man mënuñu fab ndax dañuy fab seen carte ni kii kër naka jarul jox carte bàyyi bàyyi

bu woon ne ñu ni def naa nangam d'accord leen gars yi tàccu man bokkatuma ci kuréel yooyu. moom Macky Sall génn sax deuxième tour wóoruma ne dana ko def ak lu Sénégal folli lañ man mënuñu fab ndax dañuy fab seen carte ni kii kër naka jarul jox carte. bàyyi bàyyi la naa même ànd bàyyi na responsabilité APR yëpp. waaw mais dina jàppale Macky Sall ba mu fol. moom Macky Sall génn sax deuxième tour waruma ne dana ko def ak lu ka Sénégal folli lañ man mënuñu fat ndax dañuy fat seen carte ni kii jot naka jarul jox carte. non non bàyyi nga lu mu man yow c'est que la expliqué. man chaque jour YouTube lay dugg interview yi ñëpp lay seetaan man lii daal même bu keroog bu muy naan dinaa ànd ak bàyyi na responsabilité APR yëpp. waaw mais dina jàppale Macky Sall ba mu fol bu folee. ndax moo ma invité woon ci parti moom jabaram di ma sant ba ma bokk léegi moom du ma ne banaa ci parti bi waaye nag décision bu mu jël nañ ko jëlal seen bopp mais man ne ma ci génn man je ne cautionne pas ça du ma leen cautionné daal bu ko jéem a jàppale ko ci moom la ko bu ko bëgg mën na ko wax sama responsabilité mais sa bopp man koy yow wóor na la ne ak bi ma xamalee Macky Sall dara ci parti waxu parti laa wax waxuma li kon nag bu ma demee ba léegi xamatuma di dem këram bu dégg bëccëg ñun ñu ànd Moustapha Diop Moustapha Diakhaté dañu woon fan club dem ba ñu gagné mu ñëw Pathé Diakhaté maa bàyyi ba deuxième tour mu ñëw bi mu ñëwaatee mu def ci biir jubóowul ak Macky Sall mu génn nee na na problème donc sëñ Cheikh naa a ñoom ñooñu daal ñoom la ragal <laughs> ñoo ko mën a sol na dem ñoom non non mais yow nag man de taxaw man taxaw na man taxaw waaw man taxaw na man de ku ma jox ma wax na xam nga man man surtout Amari Ngoone Sobel la du surtout gay gay doon xëy na du ma ko négocier du ma ko négocier Macky Sall mooy kan man mooy kan dama damay toog di ko def ci jàmm Marème Faye mooy kan damay nekk jàmm damaa ñoom ku dul seen jaam rek doo doo doo doo bokk man man man duma seen jaam duma seen jaam duma ko doon ba at bi may waaw lu ñu ma yor lu ñu ma may bu leen neexee nañu ko nangu dama ni dama ni nee leen grand bi moom radical nee na lu ñu ko jox bu leen neexee nañu ko nangu nga xam ne ñoo ko moom ah de de de man daal man daal li ma jox moom bu leen neexee ñu ko naan ndax man suur naa li muy doxee dama ko si dama suur li muy doxee léegi rek mooy wax bi léegi nañ jàmmaarloo ci loolu ñu xool bu may ñëwee kon yow comme yaa fi rek dinaa ñëw ci kër gi. courage et il commet beaucoup d'erreurs. Oh, oh, oh, barke Salat Fadi. ah nit la. non non il fait des erreurs. nit daal boo ko bëggee. da nga koy wax dëgg. da nga mën non il est véridique nag kon xamoo Cissé Lo yow. non kon yow mënoo ànd ak Cissé Lo. xam nga. sama jarbaat dama lay wax lu leer. magum juróom benn fukki at. boo xam ne bi mu amee ñaar fukki at benn la ko yàlla jox terrain booy wax ak moom booy wax ak moom da ngay wax ak moom ci dëkk man mënatuma fen ak di wax ak nit koo xam ne li muy wax gëmu ko mooy suma problème ak politiciens yu bëri bëri li ma nekk moom laa lay wax Macky Sall maa ko choisiroon ànd ak moom pour jàppale ko parce que da vivre